2001 lan moo rey Abdou Faye mi le ca commissariat central bu Ndakaaru box bobli ne autopsie ba day waaw dëggal na ne ko nekk daa xaru waaye njabootam gi day waaw a kaa ne ba day waaw daal dina ñuy dëggal nag li police bi wax ilaha illallah ne maanaam Abdou Faye mi le dafa xaru te njàmpe bi nga xam ne moom la xaroo day ca biir kal somba la ko nëbboon le quotidien yéen a kaa ne waaye njabootu Abdou Faye ga day nee nañ seen doom ji du xaru te bëgg nañ nag ñu ubbi kon ab enquête nijaayam ji la di moo duña ca bag sobi di waaw nee na suñ doom ji Abdou Faye dee na li ñu bëgg nag mooy mbir mi leer nañ wax nit ñi kon dëgg Guy Marius Sagna waaw ne man daal xam naa ne yendoon naa te fanaanoo naa ko di xalaat rek waaye daal damaa gisul koo xam ni kon dañ koo téye mu xaru ca bërëb boobee man daal lii jaaxal na ma réew mi ko di yéene gis nga autopsie boobee waaw dafa dëggal ni kon gone gi dafa xaru allahu akbar takk boppam waaw 24 heures yéene kaa ne waaye njabootu Abdou Faye ga day nee nañ boppam fi mu nekk ni lée nee nañ procureur jugal Alioune Tine ci critique yéen kaay ci deew Abdou Faye bi waaw nee na ñoom dàq ñu sax dindi tribunal yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca bitim réew gële di juridiction internationale yi waaw ba soob waaye daal jàpp leen ne ñi nga xam ne la ñuy laam-laamee na ñoo lëkkaloon ak booy jinne yëpp mandat de dépôt leen dama ne la caabi féete na leen ginnaaw tribune yéen kaay ne ñetti garde pénitentiaire ya ko téye ba léegi retour de parquet la waaw waaye waa frappe nee nañu nañu génnee kilifa fi ñu ko denc libération immédiate et sans condition laa wax looloy dëgg de sur ko di yéene waa M2D day ah jëlaat nañ mbedd mi dama ne la tey ci àjjuma ji la ñuy mbedd mi diggante Ndakaaru Njaay jël Jóob Jurbel ak Ziguinchor direct news de Ousmane Sonko ci boppam kon def na woote ngir wàllu mobilisation bi tey na ñëpp génn laa wax critique yéene kaay ne waa M2D geegoo waaw bataaral gi Ousmane Sonko de waaye ñoom M2D lii test la ci ñoom test la ci mouvement boobee nga xam ni kon opposition bi ak société civile yëpp ña ca biir laa la nag mooy otage politique yi nga xam ne nguuru Macky Sall gee leen téye ñu génnee leen Ousmane Sonko ci wal fajiri ne xeex baa ngi dooga door 24 heures yéene kaa ne manifestation bi day ngir yée ña doon nelaw la de Ousmane Sonko ne la ñuy sàkku daal mooy manifestant yi nga xam ne ñu ngi ci loxol Macky Sall mi lée ñu génnee leen xeex ba moom la ñuy dund day jàpp leen ne jeexagul Ousmane Sonko que Macky Sall mbir mi amee ba léegi ni la moom mi ngi continuer def ay tourn ay tournéem yoo xam ne ay téeméeri téeméeri millions la ca def laa la wax ngir boppam boobee la ca nekk mën a rege te fépp fu Macky jaar ma ngay xooxatal di tiitalaate di menacer ak a préparer ngir recruter nag ay takk der ngir jiital nit ñi la yéene kaa gi ne Barthélémy Dias day waaw juróom-ñaari question la laaj Macky Sall Barthélémy Dias day bu njëkk ba day mooy décret bi nga xam ne moom la Macky Sall mi lee officiel ba demu ca day du doon dara kañ ngay publier décret 2021 687 du 28 mai 2021 mi nga xam ne kon moom moo créé Kër Massar waaye yow décret bi nga xam ne nag mooy limité département bu Kër Massar Pikine Rufisque ak Guédiawaye kañ nga koy publier révision exceptionnelle liste électorale yi lée mën a inscrire kañ la kañ ngay defar carte électeur yu bees yi mën a wote ak découpage bu bees kañ ngay convoqué le collège électoral kañ ngay fixé retenir Barthélemy Dias ci Vox moo taxawul ngir organiser élection locale yi janvier laa la wax te gis nga bu ñu xeexulee du fi organiser ay élection ay tappale farce électorale la Macky Sall di organiser laa la wax L'As ne ngir nguuru Macky Sall googee daal di fiy jóge day waaw Alaaji Malick Gakou nee il faut opposition bi ak société civile bi yëpp daal di joxante loxo laa la wax njiital grand parti tamit ma ngay tourné ca Saloum gaay Alaaji Malick Gakou ne opposition a demoog Macky Sall day élection locale yi lay door toroxtaange coonoy sénégalais yi dund ni lée pour mu jóge fi élection locale yi lay door direct news ne ca jamono jooje Macky Sall nga jëmbat gànnaaru réew mi di waa Fuuta ak Fuutankope ana lu ñuy xaar la askanu Fuuta googee di dund mi tina Fuuta tëju na Fuuta amul ay infrastructure yu doy yaatal ma fuuta ba yegg ba kel amul université amul centre de formation professionnelle ba corona bi amee la waa fuuta yooyee doo nga xam njëriñu moodu moodu laa la wax ndaxaw a responsable APR ne ca fuuta googee ña xeex xeexu mobilisation laa la wax waaye waa fuuta tampi day tey la gën a am doole jërëjëf yéene kaane waaye bu gaan ngay dani day ma nga topp Macky Sall day ma ngi koy taloone de addi bu tànk Macky bi lay Sénégal tampi ah, dama waaye gis nga mbooloo mi nga xam ne ñooy topp Macky Sall ci tournée économique am bi la la woo xam ne dañ leen di luye de mar d'Italie exclusive yéene kaa waaye càmmi ñel Marème yi lée topp Macky Sall di ko attaqué waa lan moo tax ba Marème waxul waa xanaa Marème daa d'accord ci lii càmmiñam yi di def maanaam di attaqué jëkkër ji wax leen ci dundugu seer gi sur quotidien ministre Assome Diatta day waaw nee nguur gaa ngi def daal kéem a wàññeeku loolooy nee na ñun xam nga lan moo ñu merloo ñii di ñu jàngal adduna ci marché yi lée jaare ko ci appel d'offre ah waaw maître Demba Ciré Bathily nee na waxuma la sax ñàkk a farataal gi nga xam ne kon ñu ngi koy ñàkk a farataal doomu réew mi lée waaye ñeneen la ñuy indi pour écarter doomu gis nga boo taxawee nga ne da bëgg ay junni kon ci ay emploi waaye la nga war a njëkk a def mooy yi nga yor nga jéem leen a te téye leen balaa nga naan da ngay créer yeneen sursaane non waa Ecotra kay injustice doy na waar secteur privé national bi nga xam ne dañ leen di rey ndax waa bitim réew te xam nga lan moo gën a merloo waa Ecotra marché wu bi nga xam ne kon Abdoulaye Sylla ko gañe ñu foxati ko ci moom Wade moo def lu nu jox ko benn société chinoise te pourtant Cour suprême d'accord ca libération yi nekkaane mais dama ne la coowal góor jigéen bi am ca Parcelles Assainies waa dañ ko doon rey de daara Cheikh Diagne lay wuyoo ay ndaw daal lay topp di leen jaaroon ne daa mel ni man ndax yére yi nga xam ne moom lay sol daal xam naa ne daal la muy wax ak la muy def looloo jar a laaj du tax ñu fàtte pétrole bi de <laughs> ndekete suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere mooy coow li kon alaaji tëjal sa euh, moo jàppoon muy tricher élève ba nag ngir venger aussi moom bàyyi ko ba professeur bi di ñëw mu jël ponto teg ko ci chaise ba euh, mu mel ni kon nag ñu daal di koy gis élève ba euh, conseil de discipline bu lycée ba mujj na ko dàq ay daan moom ko Korka Diallo kon dàq nañu ko mooy élève bi ñu ànd seex nang ko ba bakka ko ci ak nettali Mamadou Korka Diallo di élève ci classe seconde LF ca lycée yi daa sampoon aiguille ci chaise ngir fas yéene gaañ Mamadou Saliou Balde di professeur am ci wàllum SVT moom ndongo bi mujjee fësal ne moo def mbir yi ginnaaw bi professeur bi xuppee ne day dàq élèves yëpp bu fekkee ne ki def jëf ji wanewul boppam moom élève bi daa bëggoon a venger wu ci professeur am ginnaaw bi ma ko jàppee loxo si poos muy tricher bi ñu càmbaree yëf yi conseil de discipline bu lycée bu Thiaroye jël ndogal ci àllarba bile dàq ba faw ca lycée ba Mamadou Korka Diallo complice am bii di Mor Mbaye te nga xam ne ci bulletin wu deuxième semestre am daañu ko ci bindal blâme moom dàq nañu ko mu war a toog seen kër benn ayu bés ndax Mor Mbaye moomee daa taaloon téléphone am ngir firme yëf yi amoon yéene wasaare mbiri ci réseaux sociaux yi ni professeur bi naroon a réagiré bu toogee ci aiguille ba yàlla def mujj cee toog lu ñeel Cheikh gay moom it di ndong ci classe seconde LF bu lycée bu Thiaroye te fekk woon yëf yi moom avertissement la jot ndax ñàkk yëgal bi pexe yi ñu ko lalaloon beneen ndongo bu ne ca classe ba te jot avertissement di bàyyi Modou Sall mi nga xam ne moo joxe woon aiguille bi ñu sampoon ci chaise ba ñu àddu jëmale ci retraités yi nga xam ne ñoo fi génnoon fan yi mu di ab kuréel bu ëmb kon ay retraités yu euh, nekk ci euh, institut prévoyance retraite bu Sénégal IPRES ñoom dañoo génnoon doon ñaawlu euh, maanaam doxalinu kër ga jafe ñu jànkonteel waaye nag beneen kuréel maanaam kuréelu retraités yi seen bànqaas ba féete ca sa Thiès bi la yoon ñoo amal ak janox taskatu xibaar yi di weddi la nga xam ne ñoo ñooñee wax nañu ko ba noppi di rafetlu liggéey ba am sa IPRES ak naka njiit la di Mamadou Racine Sy Omar Ndiaye moo yor seen kàddu ñu teewlu ko waaye suñuy mbokk lañu mënuñu leen a rejeter suñu bëggee te liggéey rek loyalement correctement tax leen jóg suñu ñëwee danañ leen accueillir à bras ouverts mais suñu fekkee dañu ñëw nag pour yàq ak pour randul ma jël ah. duñu leen ko may centre médico social yi amu ci benn bu amul garab racine joxe na instruction yi talaata la ñu ko wax ni jox naa directeur général ni ko bëggatuma dégg garab bu manqué kon nag la mu waxoon directeur général respecté na ko au bénéfice des retraités kon ñun duñu def lu dul applaudir wax ni vive racine niñ leen ko waxee ci ndorteelu bii la jotaayu xibaar waa M2D tey jii dañuy amal ak doxub euh, ñaxtu démb lañ ko xamase genoox yi moom Ousmane Sonko di dëggal sax moom dana bokk si boobu la doxam ñaxtu ndax la ñuy sàkku moo di ya nga xam ne tegoon nañu leen loxo ci manifestation mujj yi ñu bàyyi leen ndax jot na nag te yàgg nañu si kaso bi ñu ànd Cheikh Fatou Lambe Diop ñoom ñu wootoon ñu mouvement pour la défense et la démocratie ci ab marche ci àjjuma ji ko daal di génne daal di déclaré ne moom day ànd ci marche boobule leader bu fa moom jàpp na ne ndaw yi nga xam ne jàppoon nañu leen dañu leen war a tamit moom ax m 2 daal di woote woon ay manifestation ñu mujj ko bàyyi ndax xalif général des Mourides daf leen wax nañu ko bàyyi ñoom ñu tekk seeni condition bokk na ci ndaw ñi ñu libéré leen ñu toog nag ñetti weer ne gisuñu li ni mel tax Sonko ak mu m d ne ñoom dañuy dàbbaliwaat ngir nag fexe njiitub réew mi daal di libéré xale yee ñu jàppoon ñoom ñu jàpp ne yooyu leen ndaw dañu leen teg loxo te tegawul yoon Ousmane ko nag ci déclaration di wane ab détermination ngir rek ñu bàyyi ndaw yooyu nga xam ne dañ ko xeexal ah, tey it muy woo ah, ngir rek ñu tegale ay manifestation ah, ci territoire national bi yëpp waaye nag bu dee manifestation yooyu le kenn autorisé wu ko boobu mootul dina amaat yeneen i nit yu ñu teg loxo. le député du peuple ñoo ko déggandoo doxum ñaxtu bu m tey jii lay doon mu mel ni kon Ousmane Sonko démb dégg nañu ko muy dànqaafu nee na li fi jotoon am euh, bu ñu ab ñamale la rek kon nag euh, deuxième vague baa ngi ñëw bu fekkee bàyyi ñu ndaw yooyu. ndaw ñu dañ leen wax bàyyi maam man euh, mat na léegi ay deux semaines maa ngi ko doon wax xëy na nit ñi dañ ci mhm. bàyyiwul bi ñu jëloon mooy ndaw ñi bi ñuy def manifestation dañu lakk dañu yàqaale tribunal bi nekk Diourbel donc mënuñu tëb tëb amaat ay papier yoo xam ni moom la ñuy toppee. Euh, ndaw ñooñu donc dafa ay wàllu maanaam ay réglage ci wàllu administration moo xawoon a très moo xawoon ni taxaw xawoon a tax yi fi yeex ba am na sax ay nit yu ci menacé woon àttekat bi ba ñu jubbantiwaat leen ba ñu dëppoo ci kàddu nit du yàgg ñu daal di entamé seeni ay dossier ngir indi ci ak jubbanti mais mois de mars ba léegi te ñu amoon ay kàddu yu ñu dëppoo woon lu mat juróom-ñetti nit rek ñu téye leen ci kaso yi ñenn ñi ñàkk seen liggéey ñenn ñu gisuñu seen ay famille du souvent dama ci interpeller kilifa yi euh, nii bu événement xewee nga nekk en l'aise yow ak sa famille dundu dawal sa oto yëg lu la neex alors benn innocent nekk ci kaso bi te yow sa signature dong dugal ko fa dañ ci war bàyyi xel ndaw ñooñu dañoo war a génn parce que bu ñu bëri bokkoon la ay junni junni nit ñoo ci bokkoon kon bu fekkee lu ñu leen di toppee la nañ ko toppee ñi bokkoon ñëpp ci manifestation bi bu ay kilifay diine defee médiation ba kenn ku nekk sa ngànnaay nga wéer ko kenn ku nekk na sàmm ay kàddoom loolu mooy li jaadu ndaw ñooñu defuñu ci kaso bi dara ak plus forte raison am na ndaw yoo xam ni ba ci ñi dee sax ay innocent la ñu woon dañu doon doxi seen ay soxla booy mécanicien bi dee woon yëmbal ak tëneem ñu doo ko bal mu daanu kooku xam nga ni innocent la bokkul ci manifestation am na ñu ñu jàpp fii Mbuur am na ñu jàpp faneen ñoo xam ni dañu leen a yónni woon ñu génn doxi seen soxla ñu jàppale leen donc faw ñuy distinguer ñiy bokk ci manifestation ak ñu bokkul ci manifestation donte woon ku ne am nga sañ sañu def manifestation mhm. gis nga waruñu woon a xaar état bi ba waa m 2 di def benn marche bu ñuy autoriser ak non autoriser ba ñuy yóbbuwaat réew mi ci faneen foo xam ne bëgguñu ko nañu assumé seen responsabilité gis nga génn juróom-ñetti xale yooyu ci kaso bi wàññiwu leen tous nañ leen génn ci kaso bi Sénégal nekk ci jàmm ñu def seen i bu ñuy dinga ñu dinga tante ci wàllu làmbañ mm-hmm. xam nga wax wax Sénégal ba ñu am fitna quoi booy mm-hmm. nañu def ci kaso bi mm-hmm. mais nañ leen génne nañ leen génne kaso bi nañ génne aussi vingt jeunes yi doon liggéey ci usine tey foor bu kawa bu Sindia ah kon ba léegi génn ñu leen ñu nekk ci kaso bi nañu leen génne encore une fois am na seeni nattangoo yu dee ci accident ndax dañ leen doon seeti ñu ngi continuer di exploiter jeunes yi foofu ci usine bi mais na ci kilifa yi wax li lay wax kaso nañu bàyyi nañu moytandiku kaso bi ñuy dugal ay innocent ok euh, euh, gis nañ intervention bi nga xam ne xale bu murit yi ak yenn kër diine def nañ ko ci coowal euh, Ousmane Sonko bi ak M2D bi. Mm-hmm. ndax jotul waat ñoom it ñu jogaat ndax ñii tamit tàmbaliwaat nañ ne dañuy sóobuwaat ci manifestation. waaw en tout cas il est que le président Ousmane Sonko. Euh, lii lii cëram ci mbir boobu moom def na ko nguur gi moo defagul cëram. Mhm. parce que bi mag ñu baax ñi woowee mooy comme ni ko doon waxee dañu waroon dem vers l' apaisement. Mhm. vers l' apaisement mooy ñu teg gànnaay yi mais ñu teg gànnaay yi nag dafa bokkuñu ñu xale yi. parce que comme nu mu ko waxee nii événement de foule la. yow xale yi boo leen jëlee mënoo leen a toppee euh, lu ñu tuddee en droit pénal l' imputabilité des actes. parce que affaire de ful la xamoo kan la yooyu donc euh, dafa des ci euh, régime bi euh, ci nguur gi ci moom mu jëmmal ay engagement yu mu jël mooy dossier boobu ñu xaw ko vidé te vidé ko mooy ñëpp ñu taxawoon ci affaire kii boobu ñu ñu ñu génne leen. soo gisee tey jii événement yi amoon pratiquement ça a presque bénéficié l'opposition de manière globale. tey jii boo xoolee tey jii euh, lu tax la démarche de Sonko en termes de l'opposition est innovante par rapport aux autres cest dire que euh, Sonko a son propre sujet à l'ordre du jour mm son propre agenda te tey jii opposition bi wala sur ces questions sur lesquelles dañu waroon bàyyi Macky moom mu def ay tournées économiques politico tout ce qu'ils veulent ñoom lii mooy leen combat parce que événement boobu dafa euh, ça a beaucoup plus profiter à l'opposition dans sa majorité que dem d'ailleurs c'est ça que je dis que Euh, sànq bi may expliquer ne je suis d'accord que l'opposition occupe le terrain de toute manière euh, amul benn destin bu dul bañ a occuper terrain mais aussi bu ñu fàtte ni euh, topp ci agenda président de la république président Macky Sall. topp ci sujet ordre du jour am di ci wax en réalité yaa ngi koy liggéeyal sax cent t'en rendre compte. Mhm. te tey jii problématique bii dem ni waroon na mobiliser toute le l' opposition ñu mën a def d' abord génne affaire booy foofu noonu la ñu fa doon xaar ba lii. passé ñoom ñu dem defi seen beneen. alors ñu àddu jëmle ci mbiri Abdou Faye mooy complice su euh, Boy Djiné boobee ñu wax ne kon dafa xaru mu mel ni kon nag autopsie ba nga xam ne jot na génn nit ki démb la muy firndeel maanaam dafay dëggal li nga xam ne moom mooy euh, xaru googee service d'autonomie bu euh, cytologie pathologique bu hôpital général bu a Pouye bu Grand Yoff ñoo rek génne lu ni mel kayit gi génn na dëggal na xaru gi ñu ànd Cheikh Alassane Balde. àdduna complice booy jinne di Abdou Faye résultat autopsie nag daal di dëggal li nga xamante ne moom la ñu njortoon mu di xaru certificat de genre de mort bi nga xamante ne nag hôpital général bu Idrissa Pouye daal na koy xamle moom dëggal na ni kii di Abdou Faye dafa daal di ñàkk bakkanam gannaaw ay jafe-jafe ci bopp bi rawatina nag lu jëm ci wàllu asphyxie waaye tàbbi ci yeneen cër yi boobule certificat de genre mort nag daal di xamle ni amul benn jafe-jafe nag bu nga xamante ne mën nañ ko nemmeeku ci lu des ci yaram bi bawoo nag ci ay xeetu métital ak ñoomin seen résultat yu ni mel nag ñu ko doon xaarandi bu baax a baax rawatina way juróom bu góor mi nga xamante ni nag moom ci conférence de presse mu doon amal niki tey ci suba nag ak waa FRAPP France Dégage daal dina yëkki kàddu dàqale boobu la tees ndax dañoo jàpp ni gis nañ ay gaañu gaañu ci bopp bi waaye ci los bi ñu fàttali nag kii di Abdou Faye ñi fekk ko mu daal di ñàkk bakkanam talaata bi ñu génn ca kaab ba nekk ci commissariat central bu Ndakaaru moom nag ñu ngi ko teg loxo ak yeneen yi nga xamee ni dañ doon rek jéem pexe ngir rek génnee ci dëkk bi kii di Baye Modou Fall di alias Boy Djiné moom mi rëccoon ca prison ci ay fan yu ko jiitu nekkoon nag fukk ak ñaareelu yoon muy daal di rëcc ci prison yi. ñu àddu jëmale ci kër gi di euh, Ecotra entreprise bu yëngu ci BTP féete foofee sa jam ñaajo janox taskatu xibaar yi la ñu euh, woote ni ki démb doon ñaawlu nañu leen àtte ñàkkale ci ab marché bu nga xam ne ni mi ngi féete woon sa kanulaay dañu ko gañe ba noppi ñu foqati ko seen i loxo donte de bi ñu demee ci yoon cour suprême ñoom la jox euh, dëgg waaye terewul foqati ko seen loxo leeral ak Cheikh Ahmed Tidiane Seck Mansour Ndiaye cotra liggéeykat ya ak seeni kilifa ñoom nag nekk ci tiis ak njaxare gannaaw ba ñu ñàkkee benn marché public. benn marché bu bokkul ci kanulaay boo xamante ni bii dañ bokku ci ñi ko doon xëcc pour jël ah, ñu bañ ñu ko jox ko beneen entreprise boo entreprise réew la. loolu taxul ñu contesté ko parce que jàpp ne li nga xamante moo leen jiite na moo waral. problème seen avocat yu entreprise bi ñoom nag jafe na ca ñoom ñu daal di comprendre ana lu tax ñu daal di tànn nag entreprise bu biti réew na saxal ni nga xam ne ñoo di entreprise yu fekk baax fii ci suñu réew. li xam nag mooy dëgg si du dëgg nag mooy Ecotra rek moo ci nekk sénégalais mooy entreprise sénégalaise boo xam ne ci kanam ñi jóge bitim réew di xëccoo marché yi. moom mooy drapeau Sénégal mën leen duma leen di ngeen ceew bu baax parce bu ñu bëree ñoom ñëpp xam ne écotra li mën loolu la Cour suprême dëggal këru liggéeykaay bi di Ecotra doomu CREI bu Sénégal bii di Abdoulaye Sylla moo ko sosante atum 2006 mu am tey jii juróom-ñetti téeméer ci ay employé juróomi téeméeri ci ñoom di ay permanent weer wu nekk nag mu war a fay lu toll ci juróomi téeméeri million ci suñu kopparu voilà euh, su weesoo ñi euh, nga xam ne mooy Ecotra BTP jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel fii ci réew euh, Sénégal si si moo mel ni kon parfois mbàllum sous-traitance di leen waaw waaw waaw. secteur BTP bi. waaw waaw secteur BTP bi d'ailleurs dafa am benn incohérence bu mag bu am ci état bi. Mhm. parce que état bi souvent dafa dafa teg ay structures yoo xam ne ñoo ko war a tabaxal ma jox la rek ci affaire construction parce que yow mënuloo teg benn structure nga xam ne lépp lu jëm ci wàllu tabax. moom moo la war a tabaxal nga am lu ñuy tabax nga dem di ko def di ko jox ay privé pour ñu ñëw tabax la c'est-à-dire da ngay perte doublement c'est pourquoi par exemple tey jii euh, il faut ñu def benn genre réforme institutionnelle xam nga par exemple yow boo ñëwee ci kuréel bi nga ne yow moom moo lay tabaxal ministère yëpp nga loger ko ci benn ministère yeneen ministères yi mën nañoo siisu jàpp ni ñoom bis bu ñu demee foofu dañuy gën a renforcer ministère boobu moo tax du point euh, pilotage institutionnel boo amee agence noonu doo ko teg ci benn ministère mais danga koy teg président xam ni moom day xaw a nekk même au-dessus des ministères parce que souvent comme ça c'est un principe un peu tey jii waa ministère de l'économie et des finances bu ñu waree tabax dara te yow nga loger structure boobu au ministère de l'habitat donc dafay am ay crédits yuy jóge ministère de l'économie ñëw du point de vue mouvement euh, budgétaire pour mm-hmm. kii bi donc souvent loolu day tax gars yi dañuy si deuxièmement aussi su fekkee yow da nga ko def ci benn kii euh, benn ministère. Mhm. souvent gars yi nga xam ne ñooy ordonnateurs yi ñuy joxe marché yi. Mhm. comme affaire état la ñoom li leen gën a intéressé mooy ñu traité ak am nu ñu def ak moom ak yooyu que ñu traité affaire structure état donc pour mën a éviter affaire yu demee noonu il faut que agence bi nga xam ne lépp lu jëm ci xeetu tabax pour état bi il se trouve être euh, l' de construction des bâtiments et édifices publics. Mhm. mën nga jël aussi ay euh, ñeneen Agéroute mën nga jël aussi et cetera donc ñooñu il ñu génne leen ci ancrage institutionnel. ci ministère yi yóbbu leen au niveau de la présidence pour ñoom ñu mën a porter ñëpp quoi mais sinon on comme l'impression que waa ministère de l'habitat la te loolu mooy fondamentalement l'ancrage institutionnel mooy poser mhm. problématique yëpp yi ñu am quoi El Hadj le du peuple Sandar euh, foofee am ndajam assemblée générale euh, euh, ñi ngi di yëngu ci wàllum menuisier yi mooy menuisier yi ébéniste charpentier yi képp ku yëngu ci wàllum bant mi ndajam assemblée général la ñu woote euh, euh, takku taxaw nag di xaar njiitu réew président Macky la leen metti moo di njëgal bant bi nga xam ne nee nañu dafa yokk lool euh, tax na mënatuñu amal seen upa liggéey na mu waree wala sax gañeetuñu si dara loolee la ñu bëgg mu dàkk solution la ñu si bëgg du ñàkk laay ba dinañ ci àndax moom su neen jotaay xibaar mu mel ni kon menuisier yi foofee njëgal bant bi nee nañ metti na lool te faw ñu nag ñu taxaw leen si xanaa menuisier yi nekk Sénégal yëpp kon ñoo ñooy tondoo parce que démb rek am na ñu ñu fi ñëw doon ñaxtu. même consommateur yi aussi. parce que mhm. bant bi bu yokkoo yokk ci menuisier bi dina yokk itam ci kiy jënd li ñuy defar ba noppi. waaw na dëgg de. donc dafa yokk ba ci consommateur bi. maam lépp loo xam ni euh, mu ngi am ci wàllu yokk dafay répercuté wu ci population bi mais laalal ma Sénégal lenn lu ñuy jëfandikoo te yokkuwul tey. Hmm. mais bu ñu nee ma ñu la nen yokk na. nga ñëw ci boutique bi kiy jaay ne la léegi euh, ñetti mante fras nekkatul vingt cinq. mooy mooy vingt léegi wax ma lan moo yokkuwul wax ma la ñuy jaayee dërëm wala ñaar dërëm léegi. Hmm, Sénégal daanaka mën nañu ko éliminer suñu xaalis. lépp moom ciment bi yokk na. feer yokku na béton bi yokku na. di gën a doy waar même ci beton boobu beneen yokk bi ci amaat. Indien yi dañ ci dugalal seen loxo. ci xeer bi nga xam ne bu ñu tojee seen phosphate bi ñu soxla exploité ko noppi. xeer bu xonq boobu. camion yi doon jënd di ko jaayaat. sax am na beneen pourcentage bu buñu ci tegaat boo xam ni dañu monter benn logiciel boo xam ni day permettre état bu Sénégal mu xam chaque année ñaata camion ñoo yabe foofu de ce fait yow sa camion état bi chaque année yow dootul dootul dépendre ci li nga ni lii laa liggéey day ñëw indi la moom bilan wu boppam. mais indien ni ñu mën a amee noonu doole Sénégal te boo bu bu waxuma la loolu mais tey lépp yokk na ci wàllu bant yi nga doon wax. Mhm. Euh, ñu suñu ay bant ci àll bi. Mhm. ay nit ñoo dee ci wàll boobu. Euh, trafiquants yi di continuer. xam nañu ñu impliqué wu ci biir mais toujours problème bi continuer mhm. donc dafa mel ni réew mi moom moo amul amee gestion bi moo moo moo doy waar mhm. te moment boobu euh, bu ñu sukkandikoo ci info yu Guy Marius Sagna ñu ngi def cent cinquante millions Fouta ngir kat ngir gàttanu président cent cinquante millions aha ci mbumbaay ak naaf euh, jar na dem Fouta ah, comme te koppar baa nga fa ay ca ñu ñu àdd parce que bant bi bu yokk xam nga MDR mi ngi war a takk jaba amagul laal meuble yeex yooyu yëpp day metti warugar bi ñëwagul xaw dégg ko mooy mu naan wallaay wallaay <laughs> mi ngi résidé wallaay wallaay ñu wutal sa Parcelles Assainies foofee bu am na mouvement la ñu taxawal nee nañ benn bàkk la ñu am Moussa Sy doy na sëkk lépp lu mu am na ree sax jàmm taabal leen ah, ñoom nag nee nañu foofee seen i jafe-jafe la ca gën a fës moo di ah, sa l'hôpital ba amuñu scanner ah, radiographique waa amuñu radiographie waaye it climatisation amu sa morgue ba stade municipal ba juróom-ñeenti at a ngi nii mu nekk si chantier mu pare l'école ya màgget na ba nekk ab ñàkkum kaaraange ci ndongo looloo sabab ñu taxawal seen mouvement Moussa si euh, doy na MSD Free Parcelles Assainies euh, amal nañu seen ab ndaje ñu teewlu say kàddu yu tukkee ci Mamadou Gueye conseiller municipal ndax Pabantambo. xeex li nga xam ne Moussa si mu ngi koy tramé ba yëpp waa parcelle lépp yàqu au parcelle muy hôpital Mame Abdou ñu bare ñu ngi fii faatu amul scanner amul radiographie morgue bi amul climatisation tey ji boo bëggee def analyse il faut nga génn Parcelles Assainies tey boo jëlee lii amoon parcelle askanu parcelle doon si jëfandikoo lépp maire bi fi na tañ na ko centre socioculturel bi ñu collège municipal rajo municipal tañ na ko estabaa ni yàq na ko neuf ans durant Moussa Soudou yeewoo parcelle Almadi la yeewoo donc nag du ñu nangu muy nekk candidat du ñu nangu muy battre campagne te li mu bëgg a def dinañ ko arrêté ñu wax nag les autorités locales Moussa Soudou caravane Parcelles Assainies congrès ba nag muy def grand théâtre grand la mais duñ ko permettre fii Parcelles Assainies muy dérouler. ñu àddu jëm leex waa mouvement soppi ndoxu am Mbàkke ñoom nag nee na ñu bi yoon sax la ñu jël ni ab pexe moo di bañ a fay facture yu seen eau yi ndax ay jafe-jafe képp la ñu si gis facture yu cher na ba noppi euh, mën nañu am sax ndox mu jàkk te loolee nag si boppam lañu bëgg mu dàkk ñu ànd see Abdoulaye Diagne ma woon seen ndaje ba ñu dalee xeex ba léegi toll na ci ñaari at kuréel gi ñu taxawal ngir xeex ñu soppi ndoxu mbàkk yi lank ne fay ñu facture ndox mu bon. 30 pour cent segg danañ dafay pendant 30 ans. d'accord nañ ci ne seggit la ñoo ñuy faire fay fay loolu bala ñoo leen a fay dara rey nañ ñii ñee ngi jalis dëkk bi mënoon jëmbat garab mu sax environnement bi mun ta baax mais CNO ak SDE normalement ñoo war a dédommagé waa Mbàkke waaye xalaat naan fay ndox moom mun ta nekk noonu ñu jàpp ni fala budda ñu suppi réseau bi ay tuyaux fer suñ ko dindi wut suñ fa defee ndox mu jóge Sadio ak fu mu mën di jóge itam du baax ni ñuy jaayee ndox mi askan wi ñor leen lool ne dootuñu dund lu ni mel facture bi rek bëgguñu ba 20 mètres cube bu nga fay nangam bu ci tegu nga fay 700 francs loolu moom am xel mënu ko nangu benn saako ceeb kilo dërëm ak kilo téeméer ci benn saako ceeb bi kooku kooku nit ku normal du ko jënd. teg ca di naqarlu doxinu yenn kilifa yi. di ko xeex di ko xeex ba Macky Sall dégg loolu ba dañuy gasali forage mu taxaw naan maa wax Macky Sall mu gas forage loolu ko xamante dégg maire bi li muy wax kenn xamut lu mu doon. ba tey dañuy desandi ci wàllu euh, ndox mi laata ñu ñëw ci commentaire bi El Hadj ndax Mbàkke nee nañu ndox mi faw ñu soppi ko te duñu fay facture yi jamono jooju euh, coow la amoon sa kër ga am na ak saafara ndax coalition bi ëmb syndicat yi ñoom ci boppam ak euh, direction ba joxante nañu loxo ba waxtaan ba déggoo leeral yi ak Altine Diallo ñu teew ay kàddoom. damay rassurer population sénégalaise. fi am benn perturbation ci distribution ndox bi. kenn du fi yëngatu grève amul mouvement d'humeur du fi am. mais aussi di déplorer le comportement de certains délégués yi nga xamante ne jot nañu fi def ay sorties euh, wax nañu ci wàllu facturation client client yi wax tamit ci wàllu compteur ndox yi je pense que ne yooyu ce sont des propos diffamatoires yoo xamante vraiment ñu ngi koy déplorer SDE toujours moo nekk ci ginnaaw syndicat yi parce que SDE bi nga xamante ne moo fi nekkoon arrivé wul jusqu'à présent à digérer sa défaite devant SED'EAU là c'est en fait c'est ça la réalité et que suñu véritable combat mooy SDE suñu trois milliards et quelques yi mu yore et ci fonds boobu noonu tudd FCP ci fonds boobu la ñu war a capitaliser c'est ça le véritable combat qu'il faudra mener. El Hadj nee nañ jubboo nañu ñoo jël nañ coow li këpp ko SDE jamono joojee waa Mbàkke neen du ñu fay ndox. <laughs> Euh, syndicaliste bi di wax nii. Hmm. këpp na coow li waa SDE. intérêt liggéeykatam yi ak moom. dong wax <laughs> mais waxul ci intérêt peuple bu Sénégal te ñun SDE ñoruñu kiy liggéey SDE ñoruñu consommateur bi moo ñu ñor ak li ñuy liggéey liggéeykat mm. boo xam ni comme waa SDE ni ñu doon def dénoncé nañu que ñoom mm. nangu nañu joxuñu consommateur bi produit bu baax ñooñu ñooñu ñooñu la ñuy àndal wax yii nii ay xaalis ñoom lay dellu si ca ñoom ak la dugg ca ñoom ak la ñu juboo woon ak gouvernement beeg mooy comme li am diggante mm. poste ak gouvernement bu Sénégal bu ñu la waxee tey état bi li mu ameel poste yooyu mun nañ ko joxe comme xibaar mais xëy na ñoom ñoo xam ne leen arrangé ci wàllu échange mais li teel population bi la ñuy wax ma kenn mënut fexe ba du ñuy yuuxu seen au suba gu ñu xëyee ci liggéey bu bon bi mu nekk ak population bu Sénégal liggéey bu bon je dis bien ci ndox moo xam ne amul qualité moom la si woon ci ndox moo xam ne doyul moom la signé woon ci ndox moo xam ni euh, sellul te moom la si signé woon. loolu benn la ñaareel bi ci des. ba bu ñu xëyee du ñu wax gestion yu bon. USD yi seen o di jëlee ndox mi ci loxoy OFOR ci yenn ci ay localité yu jox leen espace jox leen installation jox leen ay bureau lañu ko récupérer maam bu fekkee da nga am benn dëkk par exemple xombol hmm, sama dëkk mu nekkoon OFOR nga ñëw waa seen eau jël ko waa seen o dañu signé pour jël ndoxum Sénégal SDE mais fekk na OFOR di dem ak yoonu boppam nga xam ne OFOR bu bëggee débranché wu ci Sénégal yi nañ xool beneen méthode. mënut a lu mu antalu ci forage jox ko waa Sen'Eau lu ci des mu jox ko waa Aquatec ñu dagg bopp nit ñi léegi ci échange bi am ci ndoxum xombal moomu génne ci loxo yi Ofor dugg ci loxoy waa waa waa o mais waa gox ba war nañoo xam nan la parce que parce que Sen'Eau fekk nañ fa installation fekk fa ay bureau fekk fa gestion fekk fa ay employé bu ñu leen ko joxee noonu rek ñu def seen ay construction yaatalaat jël ndox ma exiger nit ñi ñu abonné wu mais loolu fan la tegee ba noppi naan la da ngay abonné wu balaa la cinq bu la cinq passé boo abonné wul maintenant cent mille francs ngay joxe pour ñu indil la pour ñu la ndox affaire affaire jaay doole mel ni cest di que ak njaam ak njaam la waa Sen'Eau fële nga wàcc dem ci gox-goxaati pour def ay enquête sénégal yi ni ñuy souffrir ci ni ñuy jëlee ndox mi ci offre di ko jox waa Sen'Eau waa Sen'Eau dañoo mel ni ñeenti bàjjen la ñu am Sénégal lu leen neex def ci ak ndëngate et j'assume tous mes propos bu ñu weddee ma ànd ak ñoom ba fi ñuy jalgatee mhm. dañuy jalgati dañuy fekk gestion ndox ci offo ñu nangu ko te duñu leeral askan lan lan la Aquatech moom xaaliwu ma ko moom léegi nag wax dëgg yàlla ñu yow ndox mi ci Sénégal mhm. daal c'est pas ko waxtaanee. Euh, euh, c'est gis nga ci question yooyu foofu nañ doon xaaree opposition. tey jii bu opposition bu doon def ay tournée ma téye du ay dem du tournée ay euh, expliquer Macky Sall. nañ ko bàyyi foofu moom mu dem ak gaaw. question yi may question fondamentalement. Mhm. parce que gis nga opposition yi foo ñu comprendre benn affaire. ça veut dire que ils ne doivent suñ ci bëggee génn. ils ne doivent pas parler au président Macky Sall. ils doivent parler au peuple au peuple. très bien mais actuellement nii topp ci tànku Macky comme ñu koy waxee gàkku et cetera c' est parler au président Macky mm-hmm. or ñoom dañu war a parler au peuple parce que c' est en définitive le peuple qui va élire et le peuple les questions qui les l'intéressent ce n'est pas des trucs là c' ces questions là d' à des ressources primaires. mais nag booy politique booy ñoom ki nekk ci pouvoir bi. da nga koy fatangal bu waxee da su waxee da ngay voilà dañ ne bu euh, euh, Macky Sall bi mu foolee Macky Ablaye Wade mhm. ah, maam ci campagne bi dafa gis Ablaye Wade aw nii buntu ba mu ñëw aw nii traversé ñu bëkkante tàllalante loxo non booy opposé wu da ngay na suñu tànk bi nii c'est une bonne chose ah non non nañ ko su kon yéen ko ba léegi euh, non comprendre léegi calculer c'est-à-dire que man d'accord naa d'accord opposition dafa war a dérouler comme président lu muy dérouler mais dama dama la bëgg gis mais mais ah, justement stratégie bi wax ni baaxul xoolal xoolal boobu nag moom moo baaxul xam parce que yow bu fekkee Wolof Njaay danaan nit ki soo nee du ma ko topp fi ngeen jëm a soriwul c'est-à-dire que euh, logique yi bokkul du yow ci sujet moom nga koy fekk ci foofu pour combattre ko ah, non. non si le Sénégal yi woote. ñoom ñi woote c'est-à-dire intellectuellement xalaat. tey jii Sénégal yi woote. tey jii li wax nii moom ci boppam. tey jii ah te te tey jii ma jox benn exemple. politique muy Malick Gakou que muy euh, ñu dem. def ay mobilisation sociale pour que affaire ndox mi catastrophe la gouvernement bi à la limite sax daf ñoo yàpp ci ndox mi. dem porter combat boobu éclairer kii àndandoo man pour man moo ëpp impact sur le plan politique. que toppat feneen dem naan non non Macky mu leen wax fii de yooyu. voilà léegi xam nga ñoom ñoom seen tournée nu ma comprendre ñoom bu ñu demee président Macky Sall bu defee tournée day dem joxe ay chiffres wax ay waxam. ñoom ci boppam ñu fës ne dem lépp rétablir seen part de vérité problème mu ndox mi na see bokk ñoom bu ñu ne foofu def nañ fa forage def nañ fa ndox et tout ça ñoom mën nañ si profiter xamal leen ne non réalité bi lii la terrain lii mooy fam wax ka askan wi ne leen la la réalité moo nekk nii bu ñu ko déroulé affaire affaire pouvoir bi la non non non non parce que xam non damay sax dindi slogan opposition bu ñu ko woowee sax ci tànk suuf gilin suuf taxaw ni lii moom metti foo taxaw ma dem fa oto boo c'est que duo Siré ak le député du peuple nii la rek. lii moo tax mu neex lii moo tax plateau bi neex. Siré ni muy waxee nii c'est que man opposition bu defee affaire Macky Sall lay def. nen yi yokku nen yi yokku nen yi yokku moo jàpp Ndiobé de Ndiaye. li ñu doon nii moom affaire bi lay def. ay ñu dem tàggat yaram. tàggat yaram Pape Mane Mbour daal di teew asalaamaaleykum. maaleykum salaam borom tam si teex euh, foofee nga xam ne mooy Dugar. waaw maa ngi leen ah en tout cas de. <laughs> nen tam yokk na fa. fanweer moom fanweer doy na waar de. <laughs> vainqueur Kandi Beach sunu gaynde mel ni kon jot nañu seen i prime ak seen décoration. waaw ni ki démb loolu nag kii di ministre bi ñu dénk wàllum tàggat yaram di Matar Ba moo leen doon dalal nag ngir nag sargal leen ci nag ni ko njiitum réew mi waxee woon rek takkal leen nag raaya lu jëm nag ci wàllum nag décoration yi ñu leen digoon ak seen prime Matar Ba di sàkku rek nag ci lu jëm ci wàllum boobu. biir soccer ñoom nag euh, am dem ba jeex ci coupe du monde bu ñu fas yéene amal foofu théorie suñu teewlu ay kàddoom niki noonu ci euh, micro Soxna Fall ak El Hadj tey nag ma am mbégte tey def ko ci turu président de la république takkal leen médaille yi ñoom itamit ñu ngi leen di féliciter parce que lu ñu mérité la euh, jox leen Euh, ndàmpaay yi nga xam ne président Macky Sall décidé woon na ko pour délégation officielle bi ku nekk fukki million euh, defe naa ne loolu lu baax la ci ñoom suñu surtout ñuy waaye dem coupe du monde li leen di wax rek mooy li président waxoon def na ko waaye am na lu mu leen dénk nee na leen yéen a ngi dem coupe du monde fexe leen ba góor góorgóorlu su ngeen demee final dinaa ñëw ci final waaye euh, xam nañ ne xale yi ay jàmbar lañu yàgg nañu dem coupe du monde di ci góorgóorlu te am nañu objectif jàpp nañ ne loolu motivation la te dinañu ci yegg. en tout cas lu ci mënti am daal boobu les motivations daal kii di manager général bu équipe nationale bu biir ci sa kër di Ibrahima Ndiaye euh, Chita moom xam na ne ci boobu la coupe du monde nag Sénégal dina si def kéem kattanam ba nag euh, indi ko fii ci euh, réew mi ñu teewlu ko ba tey ak na Fall ni ko noonu El mooy euh, nañu fagaru te commencé ñu depuis démb euh, sur la plage de Diamalaye di entraîner pour voir éventuellement qu'est-ce qu'il faut faire euh, pour que la coupe du monde bii ñëw ni incha allah vraiment ñu dépasser fañ daan yem quoi voilà c'est notre souhait à nous tous. mondial bi mais ñu dañoo war a mais gars yi ñu man lan la ñu ëppale am na am na ay failles yu ñu gis ñun mais on va essayer pour que au moins fële dëgg yàlla nag ñu def ay jéego waay. ñu àddu jëmle ci euh, académie sportive internationale sénégalais bii di Papis Demba Cissé euh, Cissé mu moom moo ngi ca diwaanam di Sédhiou ngir nag euh, amal fa ay vacances waaye nag ci noonu mu àddu nag ci ab académie boo xam ne dina ko taxawal foofu ca diwaan wa fas yéene ko tuddee nag dem si yàlla Jules François Bocandé ñu dem sa Sédhiou fekk fa Ibrahima Diallo. Papis Demba Cissé cosaanoo si Sédhiou nekk international sénégalais de football mi évolué Fenerbahçe ci commune Salah fu mu waxtaanee académie de football bu mu nekk di taxawal bu mu tuddee ndem si yàlla Jules François Bocandé. di di di réaliser affaire bi ñu ngi waajal tabax donc euh, site bi maintenant on l'a a dañu a jublu ci liggéey bi incha allah. loolu bi ni defal nañu lépp war nañu yoon bi donc bugguma kenn fàtte turam. te ko interpellé ndax bugatina dellu ci équipe nationale xamle na ni professionnel la buy def lu ko war waaye Aliou kese kese moo yelloo mbir mu woote ak ñàkk wootee ñaanuma kenn woowuma kenn ne ko wooma dama ko nekk ci club et suñu mag mu nekk di nag donc euh, bu defee choix dañuy comprendre ñun ñu ci académie bu mu nekk di taxawal am na xememteefu may ndaw ñi xëy. sama papa comme nu ko taamoo di def at bu nekk Papis Demba ci match de gala bu mu amal nii tax na ba ndaw ak mag ñuy yëngu ci football mun a génn saafonte ci teewaay askan bu takku ñu àddu jëmale ci nawetaan yi sa yëmbal nee nañu bëgguñu benn violence waaw bëgguñu benn violence nag ci atum 2021 ca diwaan wa ñu amoon fa sax ab tournoi bu ñu dippee euh, tournoi bu solidarité ci Alassane Djigo AS Penc moom moo ci mujjee am ndam ci kaw AS Minam ñaax ci euh, dara dañ ciy teewlu euh, kii di seen parrain mi nga xam ne moo innové boobule tournoi di Ibra Faye donc comme dañoo dëkk ci benn environnement bu nga xam ne nii euh, dañu seetlu ne en général violence day bari ci nawetaan surtout ci dër bi c'est pour que nit ñi am beneen esprit par rapport ak nawetaan yi parce que constaté nañ ne daaw nawetaan amul ren nawetaan war na am donc am na benn benn fukk ba nga xam ne nit ñi dañ ko ñëwee donc ñu ne nañu def tournoi bu mel nii pour mën a sensibiliser nit ñi au moins ñu xam ne sport dafa war a boole mais warul tàggale. bépp équipe ci nekk il faut nga am loo entraîner d' abord donc équipe bu ci nekk am nga 30 loisirs muy muy muy 15 am nañ aussi ay moyens yoo xam ne tey conseil spécial bi moo leen ko indil ñaari final yi ku nekk dina ko am parce que dina leen permettre au moins euh, à partir de de de de maintenant dinañ mën a dem réaffilier wu dinañ mën a dem aussi wuti yenn joueurs yi. mambay ñu jeexalee xibaaru tàggat rek jëm nag ci wàllum euro 2021 bi kon ñu jàpp ne nag ki tey lañ ko fas yéene tàmbale match ouverture bi nag dina dox ci diggante Turquie ak Italie loolu ci groupe A kon El Hadj ñu mën a ko waxoon sànq rek balaa ñoo jeexal xam nga fan yëpp ñoo ngi wax nag jëm ci wàllum accident yi en tout cas comportement yi tamit war na changer ci kaw tali bi parce que mhm. démb bi rek man tamit c'est quatorze heures ah, si ñaari quarante deux tata quarante deux il a fallu que sax man jël naa numéro matricule yooyu yëpp parce que tamit c'est des yoo xam ne war nañ xoolaat tamit taxawaay bi parce que tamit euh, kii moo la njëkk fekk ji ko ko tali bi c'est des choses yoo xam ne ñoom seen bopp war nañu a seen seen seen comportement ñaan waa aftu mhm. ñu génne benn numéro vert boo xam ne bis bu ñu gisatee ci ay comportement yoo xam ne yéen ñu mën leen a woo dem ci ndax man man man comme tataay rek laay jël Euh, des fois da nga ciy waaw man tataay rek laay jël. Mm-hmm. Euh, donc ce qui fait que en li ma leen jël bëri trop. Euh, des fois da nga ciy daje ay comportement yoo xam ne ah. waaw non non da nga ciy daje des fois ay comportement yoo xam ni booy chauffeur yi boo leen dee wax. souvent waaw et puis day kii doo comprendre daal cest à que aftu yu leen daal l'intérêt mu mettre ay mécanismes yoo xam ni. ku ku demee leen a boole ñu mën leen expliquer au moins ñu mën a def yooyu quoi. lu am solo. <laughs> waaw comme dénoncé li gars yi waxee. Mhm. Euh, nañ xa nañ gën defaraat euh, jikko yi ku ci gaañ ay nit da ngay am problème. am mhm. gàcce te teglante bi daanaka doo taxaw benn minute te keneen ko ëgsiwul. di rawante euh, indiscipline rek. nañ ko jéem a soppi. numéro vert boobu solution dañuy yëpp ay kilifa dañuy yëpp dañuy yëpp ay ay jigéen. ay mère mhm. ñu la mat papa ñu la yaay donc foog ñu defaraat. comportement yi am solo lu te mag moom mooy gàllaaju réew. boo ko yabee da nga koy suturaal. ba mu wàcc. sinon yëpp yëpp mënuñu rawante lu mat cinq minutes six minutes. parce que Dakar moo bindoo noonu. yow loo daw daw jël risque boo jël soo wàccee cinq minutes après ka nga doon njëkkanteel mu ñëw wàcc léegi daw nànk rek dal nànk wala daw nànk yegg fa nga jëm. jaajëf Pape Manta rendez bu kon euh, douze heures la ñu treize heures wax na député du peuple. jaajëf jaajëf El Hadj. Euh, jaajëf maam. Euh, Jumaa Mubarak. Juma Mubarak yal nangu leen seen jaamu yàlla. amiin dégg naa sax mu ngi taw côté Sokone. waaw waaw Alioune Badara banlieue bi tam tey wis na. taw taw bu baax wala taw ndànk. dina ma taw na daal tey jii mooy premier taw foofu noonu. ay cinq heures du matin tey jii Alioune Badara Sonko. waaw météo Afrique aussi mi ngi wax ni ren nawet yi dina teel a dugg si. mais du du du nawet yuy yuy taw taw bu bari maanaam dina teel a dugg si ah, mm. mais après dina am benn genre passage à vide après mu doog a mu doog a ñëw parce que boo xoolee Dakar ay mois d'août la daan taw yi di doog a dugg si maintenant ren li météo Afrique de l'Ouest mm. expliqué ne ren dinañ teel a am ay pluie mais après benn passage à vide après ñu ñëwaat. mais kat diggante wax set ak voilà voilà mais, mais voilà mais mais mais fondamentalement fondamentalement euh, Afrimed mi ngi prévoir un hivernage pluvieux. maanaam dina baax waaw dana baax. waaw dana baax waaw dana baax pas dana bari ba yàqu. mais vraiment dana baax waaw dana am ndox daal. waaw waaw dana am ndox daal. maanaam baykat yi moom dana am ndox waaw dana am ndox. am ndox nag. ak gàncax bu baax du benn. ak récolte bu baax du benn. ci mbay mi. ça dépend ci mbay mi. semence ci semence bi ci mbayin bi. voilà ci mbay bi nangoo liggéey gi. voilà tout à fait semence qualité moom yi bañ a booy. semence qualité nag qualité googu mu am parce que ingénieur yi déjà ñu ngi téye seen bulletin d' analyse. ci wàllu xool bi ñu doon xool. ba pare sax loolu loolu il faut ñu wax si El loolu moom ba pare sax Amath euh, euh, euh, Mohamed Mansour. Sénégal amuñ semence fu mu toll nii cest à tey jii bu ñu jëliwul semence indi ko ci biir réew mi hmm. stock bi ñu amoon yëpp gars jaay nañ ko gerte gi jaay nañ ko semence ba jaay na ko ñu ngi nii. nawet bi jaay nañ ko lekk bisimilah jaajëf.